jërë ngeen jëf nas beeg nocc bi l'observateur nee nañu mi ngi mel ne tulleeg màlle jamono ji ci biir APR juróom-ñetti nit yi bokk ci majorité bi te taxaw ne ginnaaw kenn tànnu leen dañuy demal seen bopp fel seen yoonu bopp doon candidat ci élection présidentielle 2024 yi l'observateur nee nañu ñooñee la ñuy seet nu ñu leen di delloosi moo waral ñu taxawal kuréel goo xam ne juróomi nit di kàngam ci biir APR ñoo ca nekk ministre la ñu taxawal kuréel ki ñu njëkk a giseel nag mooy Mame Boye Diao gise nañu ak moom keroog samedi ñeneen ñi ci des fan yi di ñëw ci la gise ak ñoom ñoom ñooñee kenn ca di Aly Ngouille Ndiaye kii di Papa Sara Ndiaye secrétaire permanent bu comité pilotage bu ministère développement communautaire nee nañu ci xët mu njëkk source maa ngi woo Aly Ngouille Ndiaye di ko invité mu dellu ànd ak Samba Ndiobène Ka topp ci ginnaawam ñu ànd jàppale candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di jeunesse républicaine di waa COJER taxaw nañu ci tem COJER yi ci ñeen fukki département ak juróom-benn yi ci réew mi bokk nañu def benn résolution fa la Moussa Sow coordonnateur bu COJER moom ak i gaayam delloo rafetlu tànn gi ñu tànn Amadou Ba def ko candidat bu Benno Bokk Yaakaar di sàkku it ci responsable yi ñu teg ci suuf bopp sa bopp gi ñu bëgg a doxee teg ci suuf candidature yu bari yi ñëw ànd ak candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi Macky Sall tànn di Amadou Ba ngir jàppale ko lii quotidien bind ne mbir yi tàmbali na ci Louga mouvement dolli Macky njiit la di Mamadou Mamour Diallo ab terrain bi taxaw ci mobilisation bi ngir falaat Amadou Ba président bu Sénégal ngoonu 25 février ca premier tour ba ci la tribune coordonnateur task force APR bu Kër Massar ma nga fay dànkaafu ñiy fare ci seenug làng bokk ci ñoom ba noppi te nangu ñoo wax fan la féete Ibrahima Ndiaye nee ñoo ngi dànkaafu ñooñu di leen xamal ne duñu nangu ñóor seen agenda caché laqatu ci suuf di def li ñuy def ba noppi bëgg wax fan la ñu féete ngir di yàq suñ coalition bi Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba Ibrahima Ndiaye ne la ñu àndal moom la ñuy jàppale te bu ñu gàmmu jéba ñëw dinañu tàmbali bu mag Maguette Sène maire bu Malicounda moom ak élu locaux yi ca département bu Mbour tribune nee nañu àndandoo nañu bokk taxawal li ñu naan radel réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local keroog la ñu dajee ca Saly taxawal ko li ko tax a jóg nee nañu mooy xalaat ay yoon yu ñuy proposé candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba ngir ñu gën a bàyyi xel collectivité territoriale muy statut élu local yi di salaire maire yi ak yu ni mel ñu ne gis nañu ne acte trois décentralisation bi fi président Macky indi lu baax la waaye li ñu bëgg mooy seet lu ko gën jëmale kanam président Macky Sall Tribune nañu ci élection présidentielle yi ci la nar ndax parti bi di APR lu rëy mi ngi koy yoot ne bu deuxième tour amee ci élection yi yéen bi gis na ne dana compliqué lool ci mois présidentielle bi ki ay xibaar ca la déposé notification bi ca mairie bu Dakar Plateau journal Les di ñu dëggalal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba dolli ñu ci ne li ñu ko joxoon ngir mu jébal ko Ousmane Sonko huissier ba def na lu nekk waaye munta tegi gët Ousmane Sonko moo tax mu mujjee yóbbu notification bi ca sous préfecture bu Dakar Plateau anki kay nañu pax ci Pastef ba woon donte bëgguñoo dégg waxi plan B waaye terewul mbir yeeg ni ñu tëdd jamono ji booy boo ñu koy bàyyi mu leen yàqalul du leen ko defaral lu nekk des na ko dégg ci réew mi ci élection présidentielle yi yëral xët mu njëkk sur am na ñaari candidat yoo xam ne nee nañu député bu leen parrainé parrainé nañu ngir jox la fukki million ak juróom ba ñaar fukki million ñaari candidat yooyee journal bi nee nañu kenn ki candidat bu jigéen la boo xam ne mi ngi soog bëgg a bokk ci élection présidentielle beneen candidat bi ci des candidat bu góor la 2019 bëggoon naa bokk ci élection présidentielle yi waaye conseil constitutionnel moo ko recalé am na ñaari député yu fara ci bi di ay député yu rëy làmmiñ yoo xam ne ñooy seeni courtier Touba